bàngoo laa nekk bàngoo écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom foofu daañu ba xeex ak ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kayreet ko xeexloo ak man pour muy leer. barki Serigne booy kayreet ko xeexloo man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Ali Mbaye la ne na ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaali mbay la maa dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si moo la daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. Ah, man day ma daan de. <laughs> asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre seen site internet lutte tv point com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara tey jeudi 27 juillet 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko mos ak jour ñu ci ànd ak journal sunu lamb journal record ak les arènes point com waaye nag di ci ànd ak waa Mbirkelane FM ci Saloum di nuyu Babacar Sarr di nuy auditeurs yëpp di nuyu doomu ndeyam Abdou Dramé di nuyu ki nga xamante ne moom mooy di Mo bu Vice FM ca Gambie di nuyu suñu Ndongo Cissé père Edou Dione waa ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen jàmm. di ko sàkku si yéen ñu ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di journal sunu làmb journal sunu làmb xëy fësal ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé fësal tamit ki nga xamante ne moom mooy adversaire am di Gris Bordeaux mu mel ni su combat bi jàpp nañ ko pour le premier octobre waaye dafa mel ni Fass moom la ñu bëgg moom moo di ak dàq ci boobu le combat maanaam ñu date bi nga xamante ne jàpp nañ ko ñu daal di koy poussé ndéegul loolu mooy bëgg-bëggu écurie Fass moo tam écurie Fass daal di bind ab lettre mardi passé daal di koy jébal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waaye CNG pour daal di sàkku ab dàq ci boobule combat ndax it jàpp nañ ne kii seen mbër di Gris Bordeaux pare mënu koo def fii ak le premier octobre Gris Bordeaux ma nga xamante ne moom moo ko war a séq ak ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé moom nee na la muy préparé mooy bëre décembre wala bëre. li atum bi nga xamante ne moom mooy atum janvier 2024 nem ngir bëroo nee na mu loolu mooy li ko gënal moo tax Jules Balde wax na ci wax wax ja waaye wax ja yemale ko ci Gris Bordeaux kese waaye da ko da cee boole sax ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo moom ko war a seqal moom Jules Balde nee na ñoom ñaar ay tekkatu xel yu mag a mag a mag a mag mag la dañuy caaxan ci ay caaxaan képp la ñu nekk nañu ñëw bëre ñu jëflante ak ñoom ndax nee na dara loo xamante ne lu ñuy ragal la nekkul ci ñoom ñaar nee na daray dangereux daal nekkul ci Gris Bordeaux nekkul ci ki nga xamante ne moom moo di Modou ñoom pare nañ pour bëre euh, Gris Bordeaux le premier octobre pare nañ pour bëri ak Modou Lo le 5 novembre lan mooy réponse bi nga xamante ne moom la moo war a jógee ci CNG dem ci waa écurie loolu ab laaj la boo xamante ne Abdoulaye Dieng moom moo ko samp loolu nag lundi incha allah rabbi lañ ci am ay leeral ndax Gris Bordeaux lim sàkku ci écurie ci ci wala boog li écurie ci dañ ko koy may wala promoteur bi Ibrahima Diop daf ko koy may loolu yëpp dana leer lundi incha allahu rabbi fa la nga xamante ne moom moo di CNG ñu des ba ba léegi rek ci journal sunu làmb ci li nga xamante ne dimanche dina leer combat bu war a dox ci diggante Modou Dia ak Dame Sène diggante Talfa ak ki nga xamante ne moom mooy mbayti numéro 2 ñoolu yëpp incha allah dimanche lay am moo tax Modou Lo moom la moo ngi leen di pousser vers la victoire ku ci nekk ba nga def open press taxaw na fa daal di lay fecce feccandoo ak yow conseiller la yëngal sa public ñoom ñëpp confiance daal di feeñ ci seen xar kanam dimanche nag lay leer danañ am ndam wala duñ am ndam nañ yooni yàgg ba xam fan la wànne di mujj ak ay gëtëm ñu des ba léegi rek ci journal suñu làmb ak kenn am ndam bu yàggul dara di jam téeri moom ñeenti ñii la soxla Lac mu Moussa am ama neex ba ci Yékini Junior nee na ñoom daal instant bi la war a jàmmaarlool ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk mënuñu ko yëngal ñii moom yëngatu nañu arène nationale ba dem fa nga xamante ne moom moo di Congo wane pour bu wane fa seen bopp di équipe nationale bi ordinateur ngóor ñaax ak équipe bi yëpp dem nañ fa la nga xamante ne moom moo di Congo waaye nag wane nañ seen bopp laataa ñu dem ci gala bi nga xamante ne moom moo amoon ñu tegoon fa 10 millions mu mel lépp la nga xamante ne tegoon nañ ko fa rek ñoom ñoo ko daal di jël yóbbu. dañuy des rek ba léegi ci journal sunu làmb ak ki nga xamante ne yóbbu na ndam démb parcelle muy Boy Sine daan ki daal di daan ki nga xamante ne moom moo di saawaalo ci lu tolloog 38 secondes mu mel ni moom instant bi mu ngi ci 3 défaites 3 victoires yoo xamante ne. moo ngi koy tegle nekk comme septième journée ci Ouzin production mu mel loolu démb amoon na fa la nga xamante ne moom moo di arène nationale Mansour Ba mu mel ni am na lu ko metti de moo tax xippi na xool daal di wax ak nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di CNG ci jàmmaarloo bi nga xamante ni bëggoon na ko diggante Lac de Guiers numéro 2 ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu loolu yëpp mu jéem lu ànd moo tax journal sunu làmb ñëwaat na ca leneen la nga xamante ne journal sunu làmb ñëwaat na ci mooy combat d'Absen ak ki nga xamante ne moom moo di Modou Dia soog boo xamante ne gars yi am na lu ñu diggee mooy combat bu war a neex la am xeex am bëre combat bi tamit war na am xeex am bëre mu war a am le 6 août wax war a dox ci diggante Bébé Ama ak armée bu ngéwal bi ñu ci ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Ibra Diouf borom Mbewaan production Youssou Ndour journal Sunu la mi ngi ñuy wax ne daal ku bëgg journal sunu làmb bëgg fekk Youssou Ndour da ngay wàññeekuwaat ñu wàññeeku ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di journalu record des ba ci coowal écurie nga xamante ne moom moo di Gris Bordeaux ci nga ne moom lañ ko jox muy datu premier octobre digganteem xamante ne moom moo di Ama mu waxoon ci journal sunu mu mel loolu lañ fekk mu koy wax ci journal bi nga xamante ne moom moo di journalu record mu mel Assane Waalo mi ngi wax ne daal Gris Bordeaux nee na moom Gris Bordeaux la mu bëgg mooy bëre décembre wala mu bëre li nga xamante ne moom moo di janvier loolu yëpp nañ yónni yàgg ba xam fan la wànnenti di mujj ay gëtam ndax CNG dina ko ko may wala du ko ko may loolu yëpp daal dina leer face à face dina am tey ci diggante Boy Niang ak Tigre Junior fële nga xamante ni moom moo di arène nationale ñu ci ànd ak Pape Thialis ñu jógee foofu noonu ñëw ci les les arènes point com mu mel dem nañ fële nga xamante ne moom moo di Niger noonu la ko bindee di ñu wax ne ISRA eh, ki nga xamante ne moom mooy Anta Samb tamit combat bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar. wala compétition yi nga xamante ne ñu ngi ko ci doon xaar dafa mel loolu du sotti ndax blessure bi nga xamante ne am na ko ci genou bi mel lool lañ leen andiloon mbokk yi bàyyi xel Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di nuyu waa groupe Lutte TV di ci jiital tuuti ay Sarr Omzo bu Garga Serigne Diour bu Osodu Mor Diakhaté Arouna Camara Cheikh Bass ah doomu ndey ab Demba maa ngi koy bëgg bu baax a baax di nuyu Abdou Tall bu xarañ loo di nuyu Laay bu def waaye di nuyu ki nga xamante ne moom moo di moo Ndiaye directeur série Madeleine maa ngi koy bégg bu baax a baax di nuyu Mansour Kassé di tamit ki nga xamante ni moom moo di ah borom top 5 fitness top 5 musculation maa ngi koy bégg bu baax a baax di ko jaare di nuyu waa Poste Thiaroye ah Terrain Ndiayane ah Sall baa ngi di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Jeylaani Pouy borom Suisse ki nga xamante ni moom mooy Cobra borom Angleterre maa ngi koy bégg bu baax a baax di jox ñëpp rendez-vous suba incha allah. Bango laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom waaw daa ñeme xeex ak man. ñeme na lu ko raw. barke Seydina Limaamu booy kareet ko xeexal man pour muy leer. barke Serigne booy kareet ko xeexal ak man. Ali Mbaye na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Xaali Mbaye dogoog Xaali la ne la ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaalis mbay la maa ngi dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si ma wala daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah man day mbër mu xees ma daan de. <laughs> mbër mu xees ma daan de gars yi rek mbër mu xees.